coow li nga xam ne mu mu ngi ko toppoon digganteem ak Sidi Diop ah, dañoo bëggantee dañoo nangam dinaa la ko baraak yoon incha allah dañoo dañoo dañoo bëggante ba mu jox ko benn euh, may gu njëkk ak yi ci aju dañu jékki-jékki ginnaaw sortem bu mujj bi mu def ci tabaski gi ci suñu naataangoo yi Dakar Buzz dafa daal di jékki-jékki rek ñu dégg ne dafa def accident accident boobu mu jural ko nag ay jafe-jafe maanaam faar bu damm mais nag ñu ngi jotaat ne wér maanaam mu ngi tane mu ngi sant yàlla donc accident bu bu bu doy waar la mais terewul quand mu ngi dund te itam mu ngi sant yàlla bàjjan ban aperçu ngay njëkk a def ci cas boobu nga xam ne mooy yaawoo bi. voilà ma dégg Seydina Aliou mooy yi dañu war maytu réseau yi cat baaxul loolu faral di ko dégg parce que biñ ne def na choc. Mhm. suy leçon dafa am ñu ne non non la parce que yaa awa à chaque fois même ci rosée yi. dafay wanewu lu mu sol du ko solaat parce que nekkul bët yëpp lépp lañ war a gis parce que am na ñoo xamante nii comme ni Jimboor doon wax keroog rek ñoom lépp lu ñuy def pour ñoom suñ ko wanewul rek déedéet baaxul. Mhm. mais am na bët yoo xam ne am na loo xam ne waru ko gis. parce que mhm. yow ci réseau yi ngay nekk ah. yaa awa li ma ko xamee mooy. Euh, kii produit yooyu ñu muy muy jaay. Mhm. parce que am na benn gel bu ma ne sax man de su ma mën na gis yaaw dinaa ko laaj est-ce nekkul dafa naan affaire yi ba gonflé ba kii bi daal di kii parce que affaire dafay néewloo waate mhm. ndax yaaw suñu defee constat mooy ni mu meloon bu njëkk ak ni mu toloon ak léegi bokkul yenn yi nag moom du ay xeetu daal yenn yi ay produits la est-ce produit tamit baax na wala wóor na parce que dëkk bi wóoratul. ah yow am na xaalis nag war naa mën a. voilà yow am na xaalis. war naa mais am na loo xamante ne su ko bàjjee meleen ne meleen meleen rek ba pare di ko jaay. Hmm. melee la ñuy wax <laughs> ba pare di ko jaay. dañ naan oh bàjjee xam naa lii ak lii ak lii la utiliser. comprendre nga mais nekkul sa lépp rek da nga war a wane Seydina Aline des fois da ngay làkkatu li sama hmm. yaay di wax des fois na Aline yor ay millions. mais nga sol ay dàll ci rax boole kaat sa yére bi nga sol mais xoolal léppam dafa impact macha allah chaque jour ngi sa bi mi ngi teg fee mi ngi teg fee dañ naan bëñ su rayul xaw ma laamin xaw ni ko olof di waxee hmm. mais cat baaxul pour ñu may cat hmm. dëgg la yàlla moom mooy dogal hmm. yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko mais dañuy sabablu sabab bi na jógee si ñun su ma neexoon léegi-léegi dem dee naan samay comprimé su ma neexoon léegi-léegi jël balu fetal tiré sama bopp mm. te pourtant damay dee mais naa sam bulu ba sama heure day jot ma koy doog def ñu may joxaat cat tuuti tuuti ak làmmiñ mm-hmm. parce que wax baaxul mm-hmm. jigul bant waxatuma laak nit mm-hmm. voilà yàlla ko yàlla yëkkati tane jàmm salaam ci barke Seydina Muhammad daal di daal di bàyyi lu bari loolu laa koy digal en tant que frère en tant que en tant que sœur sœur d'accord mais est-ce que Yaa Awa mën na mën na nëbbutu puisque comme dafay yëngu ci ay produits te moom tam. Mhm. Mm, souvent nit ñi dañ koy soxla pour mu leen di publicité est-ce que mën na nëbbutu te am na kàddu gu mag ku am solo. Mhm. nee na man su ma demoon bay am jëkkër. Mhm. may gu njëkk géeg takk géeg yëpp kenn du ko yëg ci suuf lañ koy def. voilà d'accord si loolu parce que li ma sama benn mag wax rek daba Thiel ma koy nuyu mooy bàjjan man li ma seetlu mooy may bu njëkk yi ñuy jël léegi yëpp di ko tasaare ci kaw lal yi naan leen xool ah compter leen dëgg la du faux ak yooyu. Mm-hmm. da ngay toog du am sax deux semaine sëy ba daal di tas. la mu daal di am problème. Hmm. ñu fi gën a néewle xaalis seen say gën a toog. Hmm. sabootew ma nekkul déedéet ku nekk li nga mérito yal na la ko yàlla may. Hmm. mais sëñ naa ne xale jigéen tamit dañoo war a bàyyi naan non non jimbaru su ma mayul ay millions du sëy ak moom 500000 léegi moom nangootuñ ko xalaatuñ ko ci àdduna. challenge la daal. non voilà ñoom nay nekk ay 4 ay 5 millions. benn gel ne ma xanaa xamoo man mii sama may gu njëkk matul sax deux cent mille moo tax sama sëy macha allah. Mm-hmm. mais dañuy jël xaalis bi tasaare ko si kaw lal bi may nañ ma lii du dëgg kaay leen xool sëy boobu man dama seetlu day am 3 mois du fa sax egg sëy bi daal tas ëllëg nga daal demaat si jimboor yi 3 millions 4 millions ëllëg nga demaat si Seydina Aline ëllëg kaneen ëllëg mool ëllëg kaneen mais après kañ ngay toog sëy te yàlla du gaaw nga yàlla fondé famille am ay njaboot toog gérer ko mais xaalis bi ñuy wane ci internet man yaa awa d'accord naa ak moom. Mhm. mën nañ la may dara nga def ko ci sutura mais say mbokk ko sa papa sa yaay xam nañ ko. Mhm. mais jeex na am na ñoo xam ne mën nga dund ba dee doon bëkkante ak ñoom. Mhm. sooy dox kon statut ah di gaaruwaale ana samay noon affaire bi dëgg la bi mu amee ba léegi ci la say yëg ñi dem daaw ñëpp a ñëwaat ren. ñaanalu ma leen ko am na loo xam ne dama koy def ci sutura yaa awa influenceur la. gars yi xam nañ ko. macha allah. waxuma ko mu nëbbatu 100 pour cent mais am na loo xam ne ba ci ay sañ-sañ parce que moom nitu cat la. dañu xool yaaw ni sol xoolal yaaw a gërë phase am xoolal nekkul gémmiñ yëpp rek lu ñu gis dañ ko war a wax mais mu wàññi sax am loo xam ne daf koy nëbbu. Mhm. parce que dund neex na trop te ku dem doo ñëwaat yàlla na yeex. Mhm. Mhm. mu ngi noonu euh, jàngat boobu la ci euh, bàjjanam jimboor yi. bu dee ah. ci sa kaayaw naka ngay euh, jàngatee aperçu bi ngay am ci yaawa ak accident bi nga xam ne moom moo ko dal. waaw xam nga yaawa Euh, fan yele paase waaw dañoo ñëw fii ñu ne yaawa mu ne bu dee sëy kenn du ko yëg mu doon lu naay ci suuf la koy def du noonu ah mm-hmm. mais xam nga waxi waxi du defi defi quoi wax dëgg yàlla wax waxi du def defi du defi defi waxi waxi mm-hmm. nekkul defi defi de du dëgg wax bi nag nice na mais ñi ngi xaar ba booba yaa ngi dégg te tamit wax dëgg yàlla man sama jàngat rekk laay def. Hmm. boo nekkee ci koñ wala nga nekk ci dëkk. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. sa moroom yëpp jar bëy jaroo bëy njëgu bëy ngay doon. ci la du noonu. yow ki danga taaru nee nga ba ñëpp di ko coow lu dëgg. te tamit nga toog mënoo sëyi te mata sëyi tamit day doy waar de lu dëgg. Mm-hmm. waxal mm-hmm. waaw ba pare xam nga la moo ma jaaxal si Sénégal léegi coowal mm-hmm. jigéen coowal jigéen kese la woon coowal góor coowal góor kese la woon mais léegi da ngay dégg coowal góor jigéen dugg ci parce que coow la la passé damay dégg ñuy wax coowal góor ñi Omaro diw a yaawa nangam nangam affaire yooyu coow li tamit yaawa ñu ko si am ko yaa awa indi ko yaa awa coow li mel ni jox ko ndaaleeg jox ko ndab li lu dëgg ba pare man xam nga lan laa mënul comprendre ci Sénégal góor ñi laa mënul xàmmee man ak jigéen ñi wax dëgg yàlla mënul leen xàmmee lu tax loolu non man euh, euh, da ngay dégg coowal jigéen muy représenté comme góor nga gis coowal góor muy représenté comme jigéen affaire bi daf may jaaxal mm-hmm. yaa ngi dégg cest dire que man jigéen dafa jigéen dafa am ay jikko yu ma xamoon ci jigéen ak coow yu ma xamoon ci jigéen du dëgg mhm. am coow yu ma xamoon ci góor ak coow yoo xam ne xaw ma ko woon ci góor yaa ngi dégg mhm. comme li ñuy wax ne yaawa ay cat ak affaire yooyu man jàpp ma cat de ah man xam nga waa parce que Sénégal mhm. problème bi mooy euh, ma siiw looloo jafe de mais nit dangay gis kenn bu xasee siiw lu ne dina ci dugg lu ne mu dugal ci loxoom yow day mel nit kuy supprimer wu daal foo ne rek gis ko day bari sa kanam te bari gi yépp yi du dugg lu yoonam ne de noonu lay demee de yu bëri yi ngay dégg yoonam du ci nekk xam nga bu njëkk ba da ngay incarné benn affaire ñoo xam ne lii ngay incarné kenn ñaanalu ko yàlla muy dem di def sob kenn ñaanalu ko yàlla pour moom muy am problème mais ñun dañ ko ñaanal yàlla gis ko ci néeg gis ko ci kër gis ko ci néegu sëy gis ko ci leneen ak leneen. moom loolu lay ñaanal. Ah. non ka déedéet dogal boo dem fekk fa tànki borom de nu nga mel ni nga war a mel ah. waaw siiw ni nga war a siiwee. waaw nga toog ni kenn bëggu la jar ngaa seetaat. est-ce que ñi koy bëgg moom arrangé nañ ko. déedéet xam nga tey léeg-léeg Sénégal. dafa dafa am benn affaire bu ñu réeree. Mhm. gis nga tey yaawa ñi koy bëgg mun naa am ñi koy bëgg du leen bëgg. ñu muy bëgg bëgguñu ko. waaw ah, loolu nag problème la. waaw mais bu ñu wax ni nit dafa lamb quoi parce que barki démb dégg naa la nga tudd kenn nga ne non moom nee na dafa am faru rab xam nga dafa bugg a ak nday ndaag Touré xaw ma. dafa bugg a waa xaaral xaaral faru rab. non loolu gis da doon tooñ moom. dama ni xam nga lal la. Mhm. kaay ma wax la benn affaire. yow da ngay bëgg ñu xam ne bëgguñu la ñu la bëgg tamit bëggoo leen ñi mm-hmm. ngay gis nii ñu nekk fii nga naan dañoo rafet ak yàlla wërsëgu leen wërsëgu jëkkër mm-hmm. wërsëgal na leen de yàlla soxareewul noonu ni mu lay joxe ngay lekk noonu la lay joxe ñi lay bëgg yow mii doo am ñoo romb ñu lay wax dañ laa bëgg mm-hmm. waxal dëgg ah dëgg waaw léegi yow yow yow mi yow mi yow mi yow mi yow mi nii yow nii moom waxal. gis nga tey li lambal genn wàllu jigéen ñi xam nga lan la. Hmm. dañuy bëgg ku leen bëggul ñi leen bëgg bëgguñu leen. Ah, fii kenn lamb fi kenn amul kenn ku fi lamb. lu jot yomb ci mbóor mu ne. est tamit lu jot dafa jotagul rek. mën naa jot te du yomb. demal tëdd sa kër. lu jot non non jëkkër ji ñuy wax. non non dama ne nii nii exemple benn la rek. Mhm. xam nga da nga ne lu lu jot yomb. Mhm. waaw lu la téye tëdd sa kër yow ne fa laaj ak ñu xol bu dog bañ a liggéey. nga ne waxal. boo naree lamb xoola boo demoon tay bay lamb wutal sa benn cinq mille francs yaa ngi dégg. Mhm. are are yi ngay gis nga sangu ba set dóor sa benn sànce bi ak tata boo dugg paas are boo wàcc doxantu fa tuuti góor ñi gis la. waxal di promenade ci arrêt yi jar na ko. yaa ngi dégg. Mm. mais da li ma lay mën a wax te a ah, wax la ko Aliou senegaal fii kenn lamb fi dañoo bëgg ku leen bëggul ñi leen bëgg bëgguñu leen. non non am na ñu loolu kese la nga ni nga dem ñaan lu ba sonn am jëkkër loolu am na. mais rab am na déedéet eh, ñi ñuy ñaan lu ñiy ñaan lu jëkkër. Mm. demal xool ña ñuy ñaan lu c'est que moo dem ba nga xam ne dimension yi ñoo bokkatul. ah pant daal waaw. tey man damay doon ku ñu xam rek xoola ma xool rek ni bàjjan nii warumaa mën a def ak bàjjan daal mhm. xoola jombale la sama bopp man si saa si mhm. mel ni man damaa am deret boo amul wala dañ maa tëggee niñ la tëggewut waxa rek d'accord waaw xoola am na ñu xam ne ci ay bien sax dañ si dañ si augmenter seen prix am na ñoo xam ne ci beewu jàmbur lañ augmenter seen prix fii sax ci ci Sénégal am na jigéen ñu xam ni tay da comme ñu xam ma comme ma xam waali sekk bàjjan mi xam waali sekk su ma xamee waali sekk man damay augmenter sama prix te moomu ma bagage yi de du ma waali de kenn engagé wu ma wayu ma wayluwu ma moom daal bu waali toogee ma dem toog ci wetam Youssou Ndour toog ma dem toog ca wetam Sidi Diop toog ma toog ca wetam euh, Pape Diouf toog ma toog ci wetam xoola rek aj naa sama prix man te yoruma saafara de loolu laa lay wax nii man la gaay nu Youssou Ndour mu aj prix man la gaay nu Viviane aj na prix man la gaay nu man la xaritu diw mm-hmm. si Sénégal bi ñu ci bëri seen prix ci lañ ajoo damay gisanteeg Macky Sall aj ñu aj prix Sonko sama gaay la ñu aj prix <laughs> fii ñëppay lamb man maa la ko wax mm-hmm. kon ñoom ñoo lambal seen bopp nga. barki salaatul faati ñoo lambal seen bopp nga naan la. ay loolu nag seetal ma ñu si lamb nga indi leen léegi am na xoolal ma. publié leen mais est ce ñëpp nga war a sëyal. mais jigéen est ce que nekk na ñëpp nga war a sëyal. wax la dara xam nga Sénégal. kaay ma wax la Sénégal. Mhm. xoola ñoom ñii ñëpp boo leen wooyee xaw ma jaseteur xaw ma jas nan xaw ma jas dem sëyi léegi dama lay wax benn affaire soo leen woowee nii ñoom tey. Ah. Hmm? Ah. nga laaj leen ñoom ñëpp yaa ngi dégg ki ñu bëgg bëggu leen ba pare xam nga lu ñu jàppee alal est-ce que xam nga Sénégal lu ñu jàppee alal jigéen ñi xam nga ko. déedéet këyit. këyit mooy. mooy comme bu ñu leen joxee may gu njëkk jox nañ ma quinze millions jox nañ ma 20 millions jox nañ ma 30 millions 75 millions lañ ma jox loolu mooy alal Aliou. Hmm. kaay ma wax la benn affaire xarit bu baax alal la. laay la loolu ëpp alal. jëkkër ju baax alal la. ju bari dëkkandoo bu baax alal la. waaw jabar ju baax alal la. loolu mooy alal ci alal la bokk mais fii li ñu alale alal jooju moo dul alal comprend nga li ma xoola nga tànn góor gu baax xam ne góor gi mën na laa yor loolooy alal mais kuy kuy kuy baatare ay bien non non non loolu du alal foote nga du alal xoola yow fi yor ay dix mille ba ñëw di ko baatare pour man loolu alal la loolu du alal nag xoola mën naa yor samay dix mille te baaxuma alal xam nga mooy lan nga tànn benn góor xam ne góor gii ku baax la mhm. loolooy alal parce que ji mu la may ak salaam jim la may yërmande jim la may ak tabe gi mu am ci yow mais kooku boo ko xeebee ban alal nga soxla yow. léegi góor googu yërmaande bi mu la may ak jàmm ji mu la may ak tirañ yi comme ni ñu ko waxee. waaw léegi su la yóbbee këram te amul sax lu mu la jox léegi dans sa cas déedéet yërmande fu mu am. Hmm. Ah, xaalis ma wax la dara yërmande fu mu am. Hmm. yërmande mooy mooy jox jox. xoola su ma la joxoon quarante deux milliards chaque jour ma jox la ko dépasse. Hmm. te yoruma jikko ju baax. foo koy lekkee mooy doon sa problème. loolu baaxul lu nga wax. xam nga wolof daf naan saa ci ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo. jafe mbay yaa ngi dégg. Ah. xoola su ma la doon jox chaque jour quarante deux milliards dépasse chaque jour ma jox la ko. ab mayuma la jàmm man sa jëkkër mu leer na la yow sa sa sa sa jàmm mu ngi ci ñàkk maa gis te di ma gis dinañ bokk nekk. Mm-hmm. su ma ñëwee ngay bëgg a dee xoola da ngay mel ni ñéepi xam nga ñéepi mooy fas yooyu nga xam ne buy dox nii lay def buy neefare di neefare neefare yu vert yooyu du ànd ak dugub yaa ngi dégg. Mm-hmm. am na jigéen ñu xam ne seeni jëkkër li ñu yor si alal du jeex ñu jéggee sa ndox doo ko naan. Mm-hmm. Aliou ñii ñoo lambal seen bopp maa la ko wax. kenn yéenewu ko ay accidenté affaire yooyu man mais xam nga lan laa mënut comprendre. Mm-hmm. jigéen nga ne da ngaa taaru yow. defar sa bopp bañ lay woo publicité fu nekk ñu la fay woo publicité biñ lay woo ban publicité laa lay laaj ban publicité lañ leen woo wax ma ko. ban ah, publicité la. waaw ñoom dañ koy jox non yaawa ak ñu mel ne ñoom. laa wax dama ko ñaanal yàlla nag mu wér. ay ay ay diw ay cheveux comme jigéen ñi nii yu taaru waaw waaw xam nga dañ laa woo pour publicité. sa jëmm ji lañu sa jëmm ji la ñuy publicité. mais mais mais mais du bagage bi. non non tey bàjjan diw na ba am benn teint noir bu rafet. mais ah. keneen mën na ko gis pour lii produire mais. mais bàjjan xanaa déggoo ma sa jëmm yow. sa ah. jëmm yow ah. moom la ñuy publicité ah. sa jëmm yow la ñuy publicité mais du bagage bi dama ne fi ñuy woowee fi muy woowee nit pour mu ñëw publicité. Mm-hmm. Mm-hmm. ku la dàq romb na fa te te terewul yow la ñuy xaar. non non des fois da ngay am doole ci sa page wala fenn loolu moo tax bien vrai que am na ñu la dàq. waa waa waa loolu laa lay laa lay wax nii ma ne la yow sa jëmm ji la ñuy publier mais du bagage bi. tey nga ñëw jël benn affaire nga ni jimboori moo ma koy solal. Mm-hmm. boo nee la moo jimboori am na ñuy seetaan jimboori. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais am na ku ku gën a mën a sol mbub mi ne jimboori. yaa ngi dégg. te yow jimboori rek nga taamu mbaggam mel ni porte-monnaie. am na ñoo xam ne mun nañ ko ñëw sol mu fees dell nice mais taamu woo kooku yow nit ki la ñuy publier. mais du bagage bi. Ah, publicité bi mais bi dañ la fay xaalis. yow kon fi may waxee déggoo ma de. maanaam jëmm ji daal. déggoo ma de non waa sa sa jëmm jooju boo ci manee jaay xaalis. yow mënoo ko góor bëggu la. si. dama ne sa jëmm ji de nee nga sa jëmm ji boo ñëwee publier dañ lay fay xaalis waa segam yow sa googu la ñuy woo ak sa ak li la nit ñi xam loolu la ñuy jënd. yaa ngi dégg ndax nit du la ci bëgg. nit bëggula ci mhm. waxal mhm. kon léegi yow yaa bëgg yow àdduna ay rawante la mhm. koo gis mu siiw que muy bëgg du ko bëgg ñoom ñii ñëpp laa wax de woykat yeeg ñoom seen yëpp koo ci woo xar xol bi kam ca def kooku defu ko ci ka nga ka nga bëgg tamit ka nga bëgg kamu def ci xol bi kooku tamit munu koo jot Sénégal moo dérangé yaa ngi dégg ba pare yow nga nekk ci koñ xoola bu njëkk ba boo mësaan a dëkk ci koñ boo sëyul ci koñ bi gàccale woon. soo sëyul ca koñ ba nga dëkk gàccale la woon. mag ñi dañ daan wax ni boo demee si dëkk fekk fa jongama ju kenn laalul bu ko laal bu baaxoon waa dëkk ba takk yàgg na waxal mhm. mais yow baajan su ma ñëwoon seen koñ nii yanu la yow baajan yow mii pour seen waa koñ nga man nii pour suñu waa koñ la <laughs> déggoo ma de tey su ma demoon di wut jabar tey waxuma da waxuma pour leen de yàlla nag mooy boole. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais dama ne chaque jour koñ bi nga dëkk wax dëgg yàlla nag nga nekk fa màgge fa jànku fa ba def lépp yaa ngi dégg. Mhm. mais yow war nga fa mën a jar xanaa xam loo jànk ñett jigéen ñett ñett ñett la ñetti mbir la jigéen. bu njëkk bi mooy bi nga nekkee xale ñuy ñëw di la ñaan sa papa ngay làqatu may ma kii booba yaa ngi nekk njagamaar yooyu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. am benn biir bu ndaw buy génn ci suuf ñu xam ne kii moom vraiment yaa nga jax mm-hmm. yaa ngi dégg ñu lay ñaan ngay làqatu bu temps boobu passé est-ce que xam nga ban mooy ñëw. mu naan la papa maa ngi dem fii da ñëw bu la ko waxee rek ma ngay bëgg bëggatuñ ko de moom mooy génn di bëggante ji. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu temps boobu jeexee est-ce que xam nga ban temps moo ciy tegu ñu koy bëggal yow yaay génn bëggante ji ñëw jox ko yàlla nañ ci yàlla musal. Ah. yaa ngi dégg. mais mais bëggante indil la nga ne yàlla incha allah. ba jan ba bëggante indil la mooy làmb nga. non mais pour quoi pas parents yi bu njëkk ñoom suñu amee doom ci kër d'après li ma dégg. waaw dañuy dem xool ku baax. daal ñu ne ah toogal daal lay indil jëkkër. waaw te pourtant boobu seen doom yi am ñu sax vingt ans. non la ay xale. wuy ma dama ne la passé nga foofu léegi xam nga loolu amatul. Mhm, mhm. moo tax ma limal la temps bu njëkk bi mooy bi ñu koy bëgg si bi ñu lay bëgg si. bu buñ temps bu jeexee yaa ngi dégg ban temps moo ciy tegu. mooy ñuy gën di ko bëggal di indi. nga déedéet moom temps bi ci tegu moom mooy moom mii mooy génn di bëggante. boobu ñëpp ak nga war a wala xale boo gis mu naa la papa damay dem ci bitig bi ñëw sama morom yi fee la ñuy dajale ma ngay bëgg. ma ngay bëgg. da léegi bu njëkk bi laa la wax. buy doog a jóg comprendre nga li ma la wax. mooy bu nit ñëwee di la ko ñaan ak affaire yooyu fekk boobu miinagul affaire bëgganteeg am na ay temps yow xamoo luy bëgg. mais temps boobu. ba tey xaw ma ko baax na <laughs> mais temps boobu yaa ngi frais. yaa ngi dégg léegi bu temps boobu passé temps bi ci tegu mooy yow yaay génn di bëggante ji. Mhm. am na boo xa am na bëggante yoo xam ne yow yaa doon génn nit gis la nga bëgganteeg moom waxanteek moom mais temps am na temps booy toll nii nii nii mhm. nit moo lay woo naan la kaay may la sam benn xarit saa boo déggee saa mba kaay may la sama benn xarit lamm nga <laughs> waaw. dégg nga ci li mu wax. lamm ngaa. lamm ngaa. am na ñu ne ñuy mayante si ak ay xarit. nga ni. na ñu mooy lamm gi jigéen bu tolloo fi ko yàlla di joxee borom kër. Mhm. kenn du ko jaay ku ko gis bëgg ko. comprends nga li ma la wax. am na waaye nag xoola boo dépassé foofu xoola ñu bëri yàlla si boppam sàkkul nit pour toroxal ko. Mhm. yàlla moo ni man duma bind lu ma neexut yàlla moo ko wax. ko neex rek xoola koo gis ya neex na yàlla. mais nag ci li mu bind dafa am ñu ko gënal. waaw ñan ñoo ko gënal. yàlla mooy soppe. waaw xoola ñan ñoo ko gënal. Mhm. mooy ñi nga xam ne ñooy topp ay ndigalam. yuhibbul mm. muhtadin waaw yuhibbut tahirin waaw yuhibbut tawwabin waaw yàlla dafa am ay soppi ci nit ñi waaw xoola yow da ngay gis ko xam ne nii amul jëkkër wutaatu ko jéemu ko sax wut def ko cim xelam gàmm jot mu dajale fa ay ustaas <laughs> ñu mbatatati billaahi ñu naan gàmm bàjjan nga eh, ay mais bàjjan mii bala ngeen a ñëw di ko gàmmal doo leen lijjanti waale benn waaye may ko ko mais est-ce que force ah. bëgg na baaja xoola ya xoola dama ni déglu ma fii ma wax dama lay laaj boo xam am jëkkër est-ce que force la nga ni am jëkkër force la nii nii ci yow non non damay laaj boo xam jigéen am jëkkër force la force la dama am ñu ma dégg ñu ne am jëkkër du force eh kaay ma wax la dara mhm. saa bu yàlla defee ngay gis baax force la laa wax <laughs> même jigéen bu tas jigéen force la ñeenti weer boo ko tegee ak fukki fan mhm. wutal jëkkër lañ la wax pour pour bañ fooyee. boo wutul jëkkër guddi eh guddi gu nekk dangay fanaanoo xalaat. waaw looy xalaat. li ah, xalaat ah <laughs> waaw. ki ko musta xam moom bu ko neexee mën na dëkkee koor. waaw mais ki ko musta xam dafa am niveau bi fu mu toll fu mu fu muy toll. Mhm. dose bi du fort mais am na foo xam ne bu fa niveau bi tolloo dose bi day doose xam nga lool. mais nay woor rek. waxal rek. woor ñii dañuy woor. Eh. ñii dañuy woor. ñu ngi xam nga lu ma bëgg. seen caaxaan yi ba ko fii da ngay gis nit mu naan la jasseteur laat. taar baax. mannequin laat. miis laat miis kañ ngay nekk kilo. waxal rek miis nga. man de miis waxal rek. xam nga la Sénégal gii fa mu newoon la nit ñi déranger. ay damaa dem naan affaire bi forme bi génn nag ay damaa am forme ak. xoolal d'accord ci loolu. naan jigéen eh, jigéen ñu njëkk ña xam nga lan lañ daan wutee form hmm. hmm. form bi gën ci form yi. Hmm. wutal sa dugub nga dem machine walal la ko <laughs> bu guddi jotee nga defar ci sa ruy bala ngaa tëdd def ci sa meew sa suukar naan xool. di guux forme bu baax ngay am. doo ko naanee kudd da bu dee dangay am tàngooru yaram dangay def meew. meew nga seddal ko ba mu sedd lekk benn fur wi banaana wala pom nga naan meew mi tëddaaleeg moom teen bi day tàkk bàyyi leen yaa awa déggoo ma ruy bi ma la wax nii saxoo ko mais xeeb ngeen ruy xeeb ngeen lépp ah? ña nga ca naan nga waaw naan ak axe mo <laughs> naan seen xol yi lay ëpp oh. léegi-léegi da nga gis jigéen lex yi mel ne ay gambo bët yi dugg hmm. sew ruuj mu jëlaat ay xepp def ci. xepp yi xam nga xepp par minute ab dafa am minute yu muy raf. waaw léegi buy raf raf bi du gaaw léegi mbalit mu jóg dugg ci bi kii moo tax gis nga képp ko fi takk jabar dem bay waaja a màgget mu indil la gumba bëgg laa joxug yatak womat lànkal. daanaka ay xepp. <laughs> Ah, am na am na lu danger lu nekk ci xepp te xam. doo wala xeesal xeesal bu dul jeex xeesal nga xam ne natt la saa noppee teg dootoo teg dootoo teg mbay waaw yow da ngay natt rek am te ba pare li ngay diwoo soo ko dajaleewuloon say doom balaa say doom di màgg nga nga am fond boo leen dimbale yaa ngi dégg mais xam nga li ñuy wax ay jaseteer rek ay li coowal jigéen daal coowal jigéen la coowal góor coowal góor la mais yaawa ki man de ngan ko ko mm-hmm. mais noonu mu mel man lenn dong laa ko tiital vraiment hmm. parce que tamit ku nekk ñaan na yàlla am nit ku mel noonu hmm. lu dëgg ah, li muy li muy dégagé jekk na mais kaay ma wax la dara xoola ah. nii nii nag kaay ma benn affaire nii nii nii ah. na seet kenn dem fa waaw mais toog naan bis bu may sëyi loolu loolu loolu loolu loolu gàcce la di yow nga to yow nga yow nga heure bii nga waay waay xam nga lan la. man ñu dem ñu dem ci leneen en tout ñu ngi koy ñaanal suñu borom fëgg bopp bi. Fallou Seck ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi lay seen ci commentaire yi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax borom Touba Xayra. Ah, gërëm nañu la nuyu naa la Fallou wa rasul ñu ngi koy ñaanal rek di ko dagaanal borom bi yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko <clears throat> sàmm ñu ñun itam te aar ñu loolu rek moo mat a ñaan ci àdduna ñun ñëpp. yàlla na yàlla jàmmal ko daal ci kii waaw na am jàmm rek. incha allah dañu dem ci ñoom sax ah, wax dëgg te nekkul sax gàllaaj nekkul dara hmm. la ñuy def ah la ñuy def bu ëppee sa bopp yow yaay doon nagu sala wallaay ndeysaan wallaay yaa ngi dégg waaw yal na ko yàlla sàmm rek yal na ko yàlla sàmm te sàmm ñu ñun ñëpp donc dañuy dem ci li nga xam ne moom moo jëm ci Amina Sale ak borom këram classe entre jëkkër ak jabar ginnaaw bi ñu bi ñu bi ñu tasee dañu seetlu ne sëy bi bi mu tasee rek ñu wane ñu publier ko ñëpp jot ci Amina Sole dafa bind ci xawma Snapchat am la ko bind xawma ci Instagram am.